voilà Beydi ñu ngi fii ak ki nga xam ne moom mooy Nix si kenn dootu ko présenté ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais ak monde hip hop bi ba pare ñu gagné fii prix aussi donc euh, ñu ngi lay nuyu bu baax di di la bàyyi nga nuyoo gars yi wax ñu prix bi nga xam ne moom nga gagné tey Yax Jaman. waaw maa ngi leen di euh, fay maa di nuyu aussi et euh, prix bu ñu gagné mooy meilleur featuring ak Jaman Express pour Aw Ma Temps. Hmm. collaboration bi ak Jaman nan la demee woon. Passa moo def son bi Passa ak Just Beats. après mu déglu ma euh, son bi ne ma son bi dafa nice est-ce que Diamane dafa bëggoon bëgg nga dugal ci benn couplet quoi ma ne ko y a pas de problème tu vois Diamane c'est un artiste que j'aime bien euh, mu dem studio def ski bi ñu def son bi tu vois génne ko mu dox ko comme ni nga ko waxee léegi nan nga gisee nouvelle génération bi xool nga sayfa yi ak yooyu nan nan nga gisee léegi génération bi ci hip hop bi. Non, gars, un job. Ça, là, boy, tu vois, ils ont, ils ont faim, quoi. C'est ça qui est bien. Boy, ils ont faim et puis ils ont les réseaux sociaux qu'ils utilisent très bien. Donc, euh, nous, ils doivent ça à faire, quoi. En tout cas, vraiment, nous, on les soutient. On aimerait qu'ils gagnent encore plus, tu vois, tu industrie, tu vraiment. Euh, encadrement ak yooyu donc ñu ngi ciy de notre côté on essaie de faire des choses pour que le mouvement hip-hop se porte mieux mais en tout cas c'est bien c'est bien. voilà nan Hip Hop Awards xam nga ni Sénégal defi ay awards wala yenn événement dafa metti tey waaye di liggéey ba ñëw ci huitième édition donc nan nan nga gisee taxawaayam. ah c'est très bien man waaye di moom il le sait chaque fois dama koy wax dama koy ne faut rien laisser da tu continues les gens ils vont toujours parler mais il est toujours devant celui qui parle. Tu vois, ça que lui fait. je, le soutiens. Et euh, awards yëpp day am polémique. mosoo gis award Grammy Awards day am polémique Energy Awards day am polémique PVT day am donc euh, Galsen Hip Hop Awards moom polémique aussi mais c'est pas important le plus important c'est que l'institution reste voilà. lyrics si moom dañ la ko bàyyee dañ ne yow yaa ko moom. la wala da nga ko jàng wala nu mu demee noonu. Euh, c'est une bonne question. Devena vécu le Et puis aussi, j'aime l'écriture, j'aime. Euh... Ouais, ça, dans ma manière quoi, en tout cas. Écrire un texte bien fait, bien écrit, bien pensé. Je pense que j'ai aussi une bonne culture générale. Ça joue aussi. Je me documente, tu vois. Demain, demain, chaque, chaque fois, j'essaie de connaître un peu plus, de savoir un peu plus de choses, tu vois, des, euh, un peu de tout, Donc, du me permet, moi, meilleur euh, euh, euh, quand j'écris un texte donc defe naa loolu loolu moo tax waaw lyrics yi waaw moo mën bind waaw defe naa xam nga bind mooy am da ngay da ngay bëgg àddina quoi bëgg ce qui t'entoure faut être curieux di documenter wu ak mel noonu waaw donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax kontaan nañ si yow di la féliciter aussi ci prix bi nga xam ne jël ngeen. ok jërëjëf merci beaucoup et longue vie à Sénégal merci jaajëf.